أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ñu ngi taxawoon ci àllarba ji jàll wala yuxafafu anhum alazab wala hum yunsaruun war a tàmbalee tey ci walaqad aatayna Muusa alkitaaba wa qafayna min baadihi bi rusul su yàlla defee waxtu bi maye ko danañu dem ba taxaw ci wallahu basirun bima yamaluun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunu boroom mi ngi wéy di nettali digganteem ak banu Israil wax ne wa laqad aataynaa joxoon nanu Muusa Muusa ndaw la ci ndaw yàlla yi joxoon nañ ko alkitaab alkitaab buñ ko waxee tawraat lañ si jublu ndax tawraat mooy li yàlla wàcce woon ci yonent yàlla Muusa waaye banu Israila di menn mbooloo mu yàlla sàkk ñoo xam ne ku xam seen histoire wala nga jàng dara ci seen i taxawaay diggante seen diggante ak yonente yi gis ne ñoom ñu dëgër bopp lañ tawraat bi nga xam ne moom laa joxoon Muusa dañ caa dugal seen i loxo soppi ndigal ya taawil ko yemuma ji itam man yàlla waaye wa xafay naa danoo tofal xafay naa baatu xafay naa ci lañ jële xaafiya ci lañ jële alxafa gi fi di aw loos ci lañ ko jële xafay naa mooy tofal nañ wala xeeñ tuloo nañ mooy atbaa naa wala ardaf na maanaa yëpp a jege mooy tofal nañ min baadihi ci ginnaaw Muusa bi rusuli ci ay ndaw ginnaaw bi nga xamee ne jox naa Muusa tawraat waa nit Muusa yi jàngal tawraat wóote ak i ndigalam ma yabalaat yeneen ndaw ci ginnaaw Muusa yoo xam ne dañuy attewoo ci sharia yi Muusa ni nga ko waxee ci beneen barab ne inna anzalna tawrata fiha huda wa nuur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء nenun yàlla noo wàcce woon tawraat ak njub nekkoon ca akuk leer yonente yi nga xam ne dañoo wamatul yàlla daan ca attewu di ci atteel ña nga xam ne ay yahud lañ ak ulama yi nga xam ne dañuy jëf seen xam-xam ñu leen wax ay rabbaniyun ak fóore ya nga xam ne ñooy seeni borom xam-xam yu mag kon loolu jublu ci waxafay naa mi baadihi bi rusul maanaam toxaloon naa ci ginnaaw Moussa ay yonente yeneen yoo xam ne dañoo ñëw ne ginnaaw Moussa te itam biñ ñëwee ci ñu ngi doon attewoo ci tawraat boobu yi ci lañ jaaroon ci beneen barab suñu borom subhanahu wa taala wax ne suma arsalna rusulana tatra nun yàlla noo doon yebal suñu yonente yi tatra ñuy toxtaloo yàlla def nag anbiya u bani israil maanaam ay yonente yi banu israil yàlla nga ko mottalee ci yonente yàlla isa yonente yàlla isa bi mu ñëwee dafa wuuteeg tawraat ci lenn ci ay at am na ci àtte yoo xam ne fii da caa wuuteeg tawraat te xam nga ne tawraat moom lañu wàcce woon ci nit ci Muusa yi moo tax suñu borom subhanahu wa taala xam jim xam ne mu Isa dana am lu mu waroo lu bëree bëri ak àtte yi nekk ci tawraat moo tax mu dëgërale ko ay mujisa yu bëri lool Ibnu Abbas nee na bokk na ci mujisa yooyu ni mu daan dekkale ko faatu ak ni mu daan dinde loo xam ne day mel ne njanaaw mu bind ko ci maanaa ban su ci walee rek mu daal di nekk am picc ci ndigalul yàlla daan fekk ku wéradi ba kenn mënu koo faj mu mën koo faj daan xibaar yu bëree bëri ci yoo xam ne ay kumpa la yu ko yàlla xamal ma dëgërale ko man yàlla itam bi ruuxil qudus moo tax mu ne wa aatayna isa bna maryama al bayinat kon yonent yàlla isa moo mujjoon ci anbiya yi nga xam ne ñooy anbiya u bani israil bi mu ñëwee man yàlla ma jox ko al bayinat mooy ay firnde yu leer yoo xam ne képp ku gis li muy def da nga xam ne kii ab yonent doo nga mën a def lii ndax ay mujiza moom mooy lépp loo xam ne da nga ciy lottal ku dul yow nga xam ne loola ngay def ku dul yow du ko man li ñu xamal ne li nga xam ne danañu xamal ne Isa am na lu mu waroo woon lu bëree bëri ci atte ak maanaa Muusa téere ba mu fi bàyyi woon loolu alxuraan moo nu ko nett li gis nañ ci benn barab muy wax ne maanaa Isa bi mu ñëwee mi ngi wax banu israila naan leen wali uxilla lakum damaa ñëw ngir daganal leen baad alladi leen ne ci li nga xam ne xurima aleykum dañ leen ko araamaloon ci seen diine ma ñëw di ko daganal wa jitukum bi ayati min rabbikum dikke leen itam ay aaya yoo xam ne ci seen borom la bàyyi ko loolu moo ñuy xamal ne kon yonent yàlla isa bi mu ñëwee di ko yàlla joxee tawraat itam tawraat am na lu mu waroolu bëree bëri ak maanaa injil ma damaa ngi jum injil am na lu mu waroolu bëree bëri ak ak tawraat banu israila jëflante gi ñu doon jëflante ak anbiya yi jëflante gu ñaaw la ndax ñoom ñaari mbir dong la ñuy taxaw seen diggante ak yonente yi benn nga wax ba àggal ñu ne li ngay wax dara wér wala ñu fa ray la benn yoon dara warulu ko itam lu dul maanaa indil gi nga leen indil ay mbir yoo xam ne dafa wóote ak seen bànneexu bakkan ak seen i xalaat ndax dañuy gis ne doomu aadama ci boppam li ci gën a bari boo ko joxee xalaat boo xam ne ci bokkut ak ba mu façon dana maanaam bu mu la man la ci gën a woyof mooy mu jàmb la ndax am na lu muy dund loo xam ne bëggut ko ci laal dara te gannaaw yàlla day yable mu yabal yonte yàlla Isa mu ñëw am lu mu fekkoon ñële bu jalaalee dara rek dañuy defee ne maanaam dafay indi lu bees di mu wut noonu moo tax alquran wax ne wa ayyadnaahu nu dëgëral ko noonu yàlla bi ruuxil qudus ruuxul qudus baat la boo xam ne fii mufassiroon yi ñi tafsir alquran dañ cee wuute lool ndax ñu bàyyi xel bu baax ne dañuy net li waxi ay boroomi xam-xam yu tafsir alquran ruuxul qudus li ci gën a wóor mooy jibril la wa ayyadnaahu dëgëral nañ ko noonu yàlla kun dëgëral isa bi ruuxil qudus ci jibril comme ni nga xam ne ibnu mas'ud noonu la ko waxee ibnu mas'ud ku ñu xam la ci sahaaba yi ku mënoon a fi alquran la yonente bi alayhi salaatu wasalaam feeree leen ko moog ibnu abbas ci firiinu alquran moom nee na jibril lañ jublu ci wa ayyadnaahu bi ruuxil qudus ibnu abbas itam noonu mu tegtaloo ci alquran ndax wax ngeen wax nañ la ba tàyyi ne la alquran alquran da koy firiwaat alquran nga firee ko alquran moo ci gën a jekk ndax gis nañ ci suratu shuara suñu borom di wax ne nazala bihi ruuxul amin ala qalbika li takuna min almunzirin maanaam alquran jii day nazala bihi wàcce na ko ruux jibril la si jublu ndax la ca lam at lam ca lam ko naatale mooy al amin ndax jibril mooy kin wóolu ba di ko jox lii bàyyi ko ci yàlla jëm ci anbiyaaw yi mu wàcce ko ala qalbika ci sa xol yow yonent bi alayhi salatu wasalam li takuna ngir nga mën a bokk nekk min almunzirina ci ñi xuppe bàyyi xel ne gis nga alquran suñu borom subhanahu wa taala saa bu dee yable ay yama ay yonent dëgg la duñ wax ne da ngay ñëw di bégle rek di wéy waaye itam doo ñëw di xuppe rek di wéy maanaam bashiran wa nadiran lay doon da ngay bégal te booy bégal itam doo bégal ñi nga xam ne si dañoo nekk ci seen i caaxaan da ngay bégal ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu ci ak jaamu yàlla ak topp yàlla nga xam ne leen lii ngeen di def kat du neen inna la nudiu ajra man ahsana amala nun yàlla du nu sànk du nu sànk yoolu koo xam ne si maanaam dafay rafetal ay jëfam doo fekk ñoo xam ne si góorgóorlu wuñ ci topp yàlla nga leen di bégal wa illaa boo leen bégalee yaa ngay bégal loo xam ne amoo ci santaane bi yàlla amoo ci santaane bi yàlla subhanahu wa taala moo tax ñu gis ci alquran toujours ñu wax bashiran wa nadiran léeg-léeg sax maanaam ni muy béglee moom yàlla mu far leeral ko boppam jàng nañ ci suratu bi ca gannaaw wa bashiri alladina amanu wa amilu salihat bégalal ma man yàlla ñan nga may bégalal alladina amanu ñi nga xam ne gëm nañ yàlla wa amilu salihat ba noppi nag di jëf lu baax loo leen di bégale mooy anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar nañu xam ne seen jëf yooyu ko du sànk ndax ay ajjana ci ñu ngi leen di xaar ajjana yoo xam ne coroon ajjana yooyu ay anhaar mooy ak dex ña ngi koy daw bana mu jeexee wala mu fiha azwajun mutahara buñ fa demee danañ fekk ay soxna yoo xam ne yu laab la dañu gis li jigéen di gis lu koy gàllankoor te buñ fa nekkee itam waxum fiha xaalid bi kooku seetlu alquran bi muy wax ne bégalal ñu wax ne moom ñoom la ñuy bégal wa bashir alladina amanu wa amilu salihat ñu gëm yàlla tey def lu baax ñoo ñu la wax nañ leen bégal amma ña nga xam ne fii nekkuñ ci aw yoon kooku diis ko bégal ok dañ koy xub ak itam li nga xam ne ñu bari dana koy foog mooy alquranul karim saa boo xamee ne yaa ngi ciy wax waxutoo sa waxi bopp waxi suñu borom subhanahu wa taala ngay wax te yàlla itam dafa xam nit ñi dafa xam xol yi mooy moo tax saa buy wax da ngay jàpp ne da ngay jàpp ne sa yow lay waxal fii fii mu ne alaa yaalamu man xalaq xanaa ci bindu du xam axakay alaa yaalamu man xalaq ñu ko ne fin yi da nga koy jox oto boo xam ne fii maanaam moom ci am njàngam donte liggéeyul oto bi itam dana mën a fexe ba xam li ci yàqu defaraat te du koo xam ne moom moo liggéey mbir ma sax fan ah bu dee ko ko liggéey benn yoon nag alaa yaalamu man xalaq xanaa ci bind moom du fa xam moo tax toujours alquran bi wax da ngay jëfe ne yow du mu nag lay waxal te fekk ni mu fekk xol yi xam li ci li ci nekk moo tax nga defee ne yow lay waxal te fekk sax ñëpp yéen a ko bokk bokk na ci itam li ñuy njëkk a tegtal ne maanaa ruuxul qudus boobu jibril la si jublu mooy jëlee na ci xadis bu wér boo xam ne Abu Hurayra moo ko nett li jëlee ko ci sunu nay Aïcha mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam mas naa jël ab minbar minbar maanaa xutbakat bi fi ñuy taxaw tegal ko Xasaan ibnu Saabit Xasaan ibnu Saabit ku ñu xam ne ci taggoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko deel taxaw fii luñ ma wax lu ne ci loo xam ne lu jaaduwul la nga delloo lan ab waykat la waaye nam daan waaye mooy lan mooy daf daan défendre yonente bi alayhi salatu wasalam lu waaye wax yonente bi ci lu jaaduwul mu delloo léeg-léeg mu Abu Sufyaan ne ko atahjuhu walasta lahu bi kufin ndax da ngay ngaañ yonente bi alayhi salatu wasalam te yow doom nawle ndax ka ngay ŋàññi mooy koo xam ne si da ngeen a bokk luy wàcc ci yéen te moom ruux jibril wàcc ci moom kon bokku leen ala atax bi kooku kon loolu moo tax moo nekkoon taxawaayu ay wayam ñu gis ne foofu noonu sunu lay Aïcha jëfandikoo na fi baat boobu yonente bi alei salatu salaam dafa wax ne allahuma ayid xasan bi ruuxil quds kama naafaxa an nabii yàlla yàlla na nga dëgëral xasaan ci jibril yàlla na nga dëgëral xasaan ci jibril ni nga xam ne xasaan noonu lay défendre sa yonente bi bu xadis la mu ñu mën a tegtaloo ngir wane ne ruuxul qudus boobu jibril lañ ci jublu ni ki noonu itam jëlee nañ ci xadis bu wér moom itam boo xam ne mi ngi ci saxiix buxaari ak saxiix muslim yëpp li nga xam ne xel yëpp dëppoo na ci ne xadis bu ñëw ci ñaari saxiix yooyu wér la xasaan ibnu saabit dafa am benn bis bu nekk ci jàkk aleykum salaam dafa am benn bis xasaan ibnu saabit nekk ci jàkk di di way ay xasida xam nga Seydina Omar dafa tàngoon lool maam daanaka ngir mu gis dara lu jërul aw yoon te ko ci gàddoom mënta nekk jaar ku jàng histoire Seydina Omar gis nga ne loolu la fee mu julli ba noppi gis Xasan ibn Saabit nekk fee ci côté jàkka ji di jàng ay léegi mu dikk jàkkaar la moom di ko xool bët yoo xam ne si yu tàng jër na Xasan ne ko loo may xoolee lii day daanaa ko jàng ci kanam koo xam ne huwa xayrun minka moo la gën foofu te daw ma wax daal Seydina Omar romb ko jàll dégg nga kon ci xadis boobu noonu dégg nañ ci ne Seydina Omar bi ko Abubakar bi ko xapan ne qad kuntu unshidu fiihi wa fiihi man huwa xayrun minka jàkk ji fi laa daan jànge ay xasida yonente bi alayhi salaatu salaam yi la gën nekkoon kon gis nga saxaaba yi loo rëy rëy daraja tiwut la nga xam ne mooy dëgg moom ñu jàkkaar la wax ak Omar moo nekkoon xalifa jullit ñi waaye daanaa fi jàng xasida yi nga defee ne maanaam da dul aw yoon te ci la gënoon nekk ci biir jàkk ji Seydina Omar daal di gestu ci Abu Hurayra ne ko asami'ta rasulallah yaqul ajib anni allahuma ayida bi ruuhil qudus ndax ci li wax wér na ndax mos nga dégg yonente bi alayhi salaatu salaam di wax lu mel noonu di wax naan yàlla yàlla nga wuyu ci li ma lay waaj a ñaan te mooy nga dëgëral xasaan ci ruuhil qudus Abu Hurayra ne ko naam noonu laa ko dégg yonente bi alayhi salaatu salaam ma romb ko kon loolu ñaa ay ay adilla la yu ñuy xamal ne ruuxul xudus kon ndegete mooy jibril ñaareel bi itam xasaan ci boppam ñu gis ci biir wayam muy faral di jëfandikoo baat boobu am na way woo xam ne suñu ko tàmbalee ci wa jibrilu rasulullahi fiina wa ruuxul xudus laysa bihi xafaau mufaalatu mufaalatul fuul di baxru baxru waafir jibril mooy ndawal yàlla la ci ñun ñun ñun ñi nga xam ne ñooy ay jullit day yàlla yabal ci ñun mooy jibril wa ruuxul xudus itam mooy indi loolu mooy jibril kon sukkandikoo nañ ci la tegtal yu bëri yooyu ngir xam ne baatu ruuxul qudus bi yàlla wax ne moom la dëgërale woon yonent yàlla isa mooy mooy jibril téewul nag yeneen wax nii yoo xam ne borom xam-xam yi wax nañ ko beneen bi nga xam ne si ci laay jeexale ci tegtal yi ñu njëkk ñi ci ne maanaam ruuxul qudus mooy jibril yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ci xadis wér mu ne inna ruuxal qudus nafasa fi ruu fi rawi annahu lan tamuuta nafsun xatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajru fi talab jibril day wax na ma ci sama xol maanaam yàbbi na ci sama xol xamal ma ne ma benn bakkan boo xam ne dana faatu lu dul ne la yàlla dogaloon ci moom ci lu mu war a am ci wërsëg ak la mu waroon a am ci dig du ko matal amut bakkan bu ne bala ngaa génn àddina la nga xam ne yàlla waxoon ne ne moom ngay am ci wërsëg booy génn àddina dana fekk loola lépp nga jot ci xam waxoon ne bala sa dig di jot itam kenn mënu laa faat sa dig ba ak seegul bu dig ba ak see itam kenn mënta la jëndi ba nga romb faaw rek wax nga yem waaye foofu li ci itteel mooy li wax ne inna inna ruuxal qudus te fekk boobu jibril la si jublu kooku itam dalil la bi wane ne kon ruuxul qudus maanaam jibril la am nañuy wax ne ruuxul qudus mooy turu yàlla bu mag woowu yi nga xam ne ci la yonent yàlla isa daan dundale ku faatu al ismu al azam alladi kaana yuxyi bihi al mawta donte loola ay ay ab dalilam maanaam man yee gën koo dëgër ndax alquran wax ko ne daa gën taxam yàlla bopp moo tax su alquran duñu yee dara demaat ci barab leeralaat ko kon dañuy far jàpp ca loola benn yoon suñu borom dañoo gën a xam boppam bu ya bu bu yàlla jàllee yonente bi gën ñoo xam yàlla am na itam ñu wax ne ruux boobu mooy ñi yàlla dénk malaayika yi maanaam malaayika yi yàlla dénk nit ñi ñu di leen di sàmm xama xamoon nan ko mbéet waaye nan ko maata xam ñun ñëpp ay xafaza wa inna alaykum la xaafizin am na ñu ñu yàlla booleel ñoo xam ne dañuy wóotante ci ñun yataaqabuuna alaykum malaikatun bi leyli wa nahaar fii mu ne malaayika yi dañuy wutante ci jëmm ji am na ñoo xam ne li ko dalee ci suba gi bi nga yeewu ba ci waxtu bëccëg yi ñoom ñoo fi nekk di toppaloo say mbir saa boo xamee ne ngoon jot na wala bëccëg jot na ñu ñoom ñu denc yóbbu lañ jot a bind ci yow ñeneen ñëwaat ñooñu buñ fi nekkee ba waxtu tamit ñu jógee fi dem yóbbu loola ñeneen ñëwaat ak itam loolu alquran di ñu jëfale lahum aqibatu min bayni yadayhi wa min xalfihi yaxfadunahu min amrillah ñooñu itam dañuy dox sa diggante ak lu bëree bëree bëri ci loo xam ne daf laa nara daf laa nara dal ci gàllankoor ma tax may joxe misaal ci ne léeg-léeg nga gis jëmm joo xam ne bu dee nelaw ci guddi fi mu tëdd donte ab ab ëtt la doo gis ay sànqale ñu jékki-jékki rek di yeewu ñu ne sànqale yaa ngi ko xam kenn du ko gis waaye bu faatu woon moom nit kooku noonu ci même barab bi mu tëddoon nga xam ne ay sànqale loolu ñu ko dañ koy dañ koy teg su faatu woon balaa mat benn seconde boo ko jëlut ñëpp si kon ndax ño yooyee ko doon yooyee ko doon wat dem na kon doomu aadama war naa bàyyi xel yooyu ko yàlla booleel ku yàlla fonk ba booleel ak yu mel noonu dañ ko war a bàyyi xel lahu muaqibaatu min bayni yadayhi wa min xalfihi yaxfadunahu min amrillah amrullahi yaxfadu amrallah mbirum yàlla ñëw di sàmm mbirum yàlla ndax malaayika yi mbir yàlla la ñëwaat di sàmm loo xam ne fi ngir mu bañ mu mu mu mu mu agsi ci yow la beneen ba mooy ruuxul qudus ci boppam dégg nga ruuxul qudus ci boppam am na ñu ko firee ba tey injiil am ñu ko firee injiil wax ne waaye ñooña liñ ko firee jibril mooy danoo gis ne alquran suñu borom da ko tuddee ruux ñu ne kon injiil la comme ni nga xam ne suñu borom dafa tuddee alquran am ji wa kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina awxayna noonu yàlla wax ne ilayka ruuxan min amrina ruux boo xam ne ci ñun la bàyyi ko loola ca la ñu sukkandiku ñoom ba ne kon ndekete kon ruux bi suñu borom di tuddee alquran kadalika mën ko tuddee injiil waaye loolu alquran moo leen ci bàyyiwut ndax dañoo gis ci alquran benn aaya boo xam ne fii du ànd ci loolu aaya ba mooy ban di suñu borom ne wa id qaala allahu ya isa ya isa bna mariam udkur nicmati alayka wa ala walidatika ëllëg yowm alqiyam suñu borom dafay taxawal yonte yàlla isa ne ko yonte yàlla isa fàttalikul nicmati alayka xéewal gi ma la defal ndax li gën a bëri li gën a bëri saa boo gisee jëmm ay xéewal yu bëri di jaar ci moom saa boo gisee jëmm yàlla di jaar ci mu ay kaawteefe ci mujisaat bu dee aw anbiyaaw yi bu dee awwali yi muy jaar ci mu ay karamaat karamaat yooyu mën naa gàllankoor ay nit mën naa gàllankoor ay nit koo xam ne sa iman wirut wala dëgërut na war a dëgëre ndax lu ko may rek nga daal koy askanale moom ci sens moo tax suñu borom ñuy gis saa bu dee wax yëpp yàlla Isa ci lim ko defaloon da koy tënk ngir bañ maanaam kenn ko doxla fi moo tax ëllëg yawmal qiyaam gis nga mu jàkkaarloo ne ko uzkur ni'mati alayk yëpp yàlla Isa fàttalikul sama xéewal gi ci sa kaw ci xéwal gaa yi tàmbalee fan ak itam wala walidatika li ma defal sa ndey sa wajuru jigéen moom dong lañ gis ci wajuru jigéen woo xam dafa ñëw am amut amut borom kër te bañ ko naree tuumaal naan ndax kii njaalo woon mbaa mbaa daa ci mu ne wax leen ak sama liir bi ñu ne kayfa nukallimu man kaana fil mahdi sabiyyan nu nuy waxee ku nekk ci berceau di doon gone nuy waxee moom ca sens mu yëkkati kàddoom ne inni abdullah booba booba ab liir la mu ne man abdullah la jaamub yàlla laa kon nga dem ba yàgg ñu naan ne sala saalisu salaasan mooy ñetteelu ñett ya moo mu juddoo la ko weddi inni abdullah man jaamub yàlla laa fàttaliku loolee ma defar soleil lii suñu borom ay jàkkaar la moom ëllëg yoon a tam di ko wax fàttaliku li tam ba ma la xamalee tawraat wa id allamtuka alkitaaba ba ma la xamalee alkitaab maanaam téere ba wal xikmata wa tawraata wal injil li ñu bëgg a misaal mooy ku bëgg a firee tawra ku bëgg a firee ruuxul qudus bëgg ko firee injil kon su boobaa dañuy gis ne fii takraar dafay daal di am takraar day daal di am ndax injil su fekkee ne masalan kitaab boobu mu ñu wax moom la bu wëlbati ko waat naan di waxaat wal injil loolu takraar day daan koo xam amul genn maanaam suñu borom buy wax ak jaam ñi day wax ak ñoom lu ñu xam kon li gën a wóor ci loolu ñu jàll mooy nga yëg ne ruuxul qudus daal mooy jibril moom la ñu dëgale woon yonent yàlla isa suñu borom subhanahu wa taala wax ne afa kullama jaakum ndax saa boo xamee ne ñëwal la leen rasulun ndaw lu bàyyi ko ci yàlla indaale bi maa loo xam ne laa taxawaa supp ko anfusukum seeni bakkan fari fa fariqan ab kuréel ci yéen kazzabtum fen loo ko fa fariqan ab kuréel ci yéen taqtuluna jéem koo rey loolu luy ndeyam lan mooy ndey saa boo xamee ne man yàlla yabal naa ndaw mu indaale loo xam ne dafa dëppoo ak seeni bànneexi bakkan am ci kuréel ci yéen ñoo xam ne dañ koy fenloo ci sens moom ne ko lay wax du dëgg ña ca def fa siire koo rey ba fariqan taqtulun loolu lan mooy ndeye maana ndax loolu doomu aadama am na sañ-sañu jàkkaarloo ak mbokk jullitam wax leen lan mooy dëgg loolu am na sañ-sañ waaye lan dëgg googee bu fekkee ne jëloo ko itam alal aqal nga maana ca kooku waaye lan mooy ndey bu indee loo xam ne laa tahwa anfusukum fariqan kazzabtum ak kuréel ci yéen fenloo ko wa fariqan beneen kuréel ba taqtuluna fa siire koo rey ah ba bari xel bi ma anfusukum istakbartum ngeen rëy rëylu istakbartum ngeen rëy rëylu fi mu ne dana am koo xam ne li mu nekk da cay yàgg ba mu yàgg nit ñëw leeral ko ca dara ca loola xam nga lu ko ko tee jëla istikbar ndax dëgg bul ko jéem a jël ci mag maa nga di ko jël ci ndaw xoolal ba xam dëgg la am déet rek fu mu bàyyi ko jëlal doon ci iblis la bàyyi ko sax jëlal moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn bis mu wax Abu Hurayra Abu Hurayra moo ko doon sàmmloo baytul maal Abu Hurayra dem fekk fa seen soxna su màggat di fàcc te bagage baytu baale mu tee ko di ko bëgg a indi ci yonent bi salaatu wasalaam mu ne ko bàyyi ma damay njaboot te aw ma lu ma jox sama njaboot moo tax nga fekk ma fii waaye tey jii doo ma gisati ñaareelu fan ba mu demaat ñu yónni ko ca baytumaal salaam salaam ko moo ko ci yónni mu dem ci baytumaal di fa jël di fa di am lu mu fay jëli ci ay tàndarma fekkaat fa waay soxna mu jàppati ko bu ko indi moo xaar la mu ko waxoon dem te ñetteelu fan ba ba mu jàppee bay waaj a indi bay ngooy bay waaj a indi mu ne ko kaay ma xamal lay baat yoo xam ne boo ko waxee rek nga mucc ci man mu ne ko yan baat la mu ne ko ayatul kursi mu bàyyi ko salaatu salaam li ci gën a yéeme mooy moom mi nga xam ne su borom da koy xamal lu mel noonu maanaam guddi bu njëkk ga bu Abu Hurayra njëkkee ñëw lu mu ko ñëw ko dana ko ma maa faala asiru ko albaariha da nga jàppoon bi ci guddi lu mu lu mu def ak lu mu la wax ñetteelu fan bi mu ne ko daf maa wax ne ma day boo jàngee ayatul kursi da nga mucc ñëwoon mu ne ko kadabaka wa huwa saduq li mu la wax dëgg la waaye moom ab fenkat la kadabaka sadaqaka wa huwa kadub maanaam moom li mu la wax dëgg la waaye moom ci boppam ab fenkat la loolu li ñu ci bëgg itteel mooy dëgg fu mu mën a bàyyi ko rek jëla salaal moom da ko wax ne ko maanaam kon duñ ko jël ndax iblis ko wax ayatul kursi moom gën a iblis wax duñ ko jël la wax dëgg moom nag mën naa nekk askankat wala loolu nu itteelu waaye la wax la ñuy xool ba xam lu mu doon moo tax ñuy gis ci alquran ida jaaka al munafiqun yonent bi alayhi salatu wasalam suñu borom ne ko naafiq yi saa bu ñu la ñëwalee qaalu dañuy wax ne nashhadu innaka la rasulullah ñu ngi seede ne yow yaay ndawul yàlla borom tekki ne wallahu yaalamu innaka la rasuluhu yàlla day xam na ne moom ndawam nga ñu ne ko xanaa kon lee ñu wax na dëgg mu ne déedéet wallahu yaalamu innahum la kadibun te wallahu yashhadu innahum la kadibun teewut itam yàlla xam ne naafiq la ñuy wax ay fen la lañu wax dëgg la waaye dafa dëppoo wut rek la nekk ci suñu xol dara suñu borom tuddee ko fay kon la nit am na ci droit ci leeral la nga xam ne mooy dëggu suñu borom bi subhanahu wa taala dëgg ñaari jumtukaay dana gàllankoor nit ba du ko jël benn mu ñàkk xam ba xam li dëgg la am lépp beneen ba ca des mooy istikbaar gi suñu borom subhanahu wa taala di wax muy maanaa ak rëy ak yàlla musal wa fariqan kazzabtu wa fariqan yaqtuluun moo tax sama xarit yi di wax ne boo gisee alquran jëfandikoo wut dafa wax ne fa fariqan kazzabtum kon dafa mel ni daa waroon a wax ne wa fariqan qataltum waaye mu bàyyi ko fa ne wa fariqan taqtuluun loolu dafa bëgg a wane ne fi'lu mudaari' lu muy tegtale alxaal wal istiqbaal mooy lu teew ne léegi-léegi ak lu jublu si mooy wane ne kon ñoom rey gi ñuy rey yonente yi saa boo xamee ne rek du jaage ne ci yonente yàlla Iisaa la dong lañu ko jéem waaye yonente bu leen ñëwalati te jéem leen a wax loo xam ne si dëppoo rek seen bànneex dana ko jéem a rey te loolu def nañ ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam def nañ ko ko am na bis loo xam ne sallallahu alayhi wasallam dafa dem di sàkku ci ñoom ndimbal ci ñaar ñoo xam ne fii ci ay saxaabam lañ bokkoon am ñu ñu rayoon mu bëgg ku leen ko dimbale ci biir biir gi nga xam ne moom la ñu war a jox ñu ne ko xaar ñu foofu tuuti ñu ñëw dem waxtaan daal ne maanaam tee ñu ko joor benn raxa muy doj bu mag woo xam ne fii su laal fi mu toogoon nii maanaam fële ca kaw lañ ko ko bëggoon a yoon mu dal ci bopp kenn ci ñoom daal ne ah loolu du ma du ma ci ànd man ndax kii de lépp lu ngeen jéem ci moom bala ngeen ak suñu borom xamal ko waaye mu féetarlu ba ñu génnee dayoo ba nga xam ne fi maanaam solaal salam ay saxaaba la àndaloon waaye daa jekk jekk fa bi neen fekk leen ma kër fekk leen ma kër ga leen wax mu dem dem fa toog fa lu yàgg yàgg bi bi ñëwee mu ne leen xanaa li ma def jaaxal na leen tey de ñu ne ko ñu ne ko waaw mu ne ñoom ñoo rek saay saay sooy am naa ul xiradata wal xanaasiir ñoo mën a roon a sànni ab raxamaana kon rey googu nga xam ne fii maanaam moom la yàlla jëfandikoo ci taqtuluuna di wane ne ñoom saa bu leen ndaw ñëwalee rek ci loo xam ne fii dëppoo rek seen bànneex danañ ko jéem a rey loolu moo tax mu jëfandikoo baatu tax loolu jooju te bañ a jëfandikoo baatu xataltu ndax xataltu fii ramadan lu tegtal lu jàll maanaam wa qaalu qulubuna gulf ñoom nag nee nañ li tey ñun ñu jël dëgg gi mooy qulubuna suñuy xol ci boppam gulfun qulubuna gulfun firi yi teqalikoo na ci loolu ci mufassirun yi am na ñu koy firee qulubuna laa tafqah maanaam sunu xol yi du jéem a dégg sax li ngay wax ay wax ba sonn rek waaye ñun bay ba nga noppalu ci te kat mu bàyyi xel ne melaw yëpp yàlla di wax yàlla waxoon naa leen ci njëlbeen ne leen ay jëmm yitteelu ko xam nga lu ko yitteel ay melaw ya nekk ci jëmm yi ndax yéefar bi gën a rëyu kéefar tey jii bu duggoon ci lislaam suñu borom bàyyeetu ko xel xelam daan def bu ndax melaw yi nekk ci ñoom rek lay waxat kon wa qaalu qulubana xulbu xulfun foo xam ne itam yaa ngi bindoo nu mel noonu nga jëm ko saafara lépp lu ñuy wax tamit alquranul karim nga fas yéene ne doo ko dégg te loola du wax ci wax wax yàlla la kooku aw melaw la ba tey yoo xam ne si du melawuñu rafetlu kon ñoom daanañu wax ne xulubuna xulfun mooy suñuy xol jéemut a sax dégg li ngay wax comme ni nga xam ne yonent yàlla Shuayb bu ñeen ko yebaloon te waxoon nañu ko noonu yaa Shuayb maa nafqahu kathiiran mimmaa taqul li gën a bëri ci li nga wax dara lañ ko xamul wa inna la naraaka fiinaa daa'ifan te noonu sax dañoo gis ne ku niw doole nga ci ñun ndax yow yàlla bi mu lay yebal yebalul xam nga fu ñoom li leen gënoon a gàllankoor mooy yàlla di yebal koo xam ne si maanaam ko yemamaay la ñu jàpp ne bu yàlla yebal yebal waxtu ne daa war a jël ca ka nga xam ne si maanaam moo gën a am jëmu ci ñoom mu yebal ko mu gàllankoor ji gën a bëri ci ñoom wa inna la naraaka fiinaa daa'ifan dégg nga ko walaw laa raxatuka sa kuréel bu ndaw soosu bu dul ko ne ñoom la rajam naa ko ñu fànn lay xeer ba nga fàtt lu mu leen tontu arahii a'azzu alaykum min allah sama kuréel sii de li ngeen leen di xeeb xeeb xeeb ñoo gën a tedd fa yàlla ci yéen ñooñu arahii a'azzu alaykum min allah wa taxastumuhum wa taxastumukum wala wa taxastumuhum wa taxastumuhum waraakum hijriya inna rabbi bima taamaluuna muxiit ak itam qaalu anu'minu laka wa tabaaka al ardaluun ndax nun dañ lay gëm te sàmba sura bari sa topp la ci ñoom seen gis-gis mooy al ardaluun ñi gën a néew doole daal suñ dee ànd ak yonent loolu dana gàllankoor koo xam ne fi maanaam borom pouvoir la dana bëgg dugg sax waaye yemamaa ñooñu moom ñoo koy gàllankoor daal sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ko ba am ñu ne ko sax àgg ci ne ko maanaam boo mënee dàq ñi ñu daal di ahlu suufa ña nga xam ne dañoo bàyyi ko woon Màkka ñëw Madina amuñu kër amuñuy soxna bàyyi seen lépp ngay jëm yàlla lil fuqaraa alladina uxriju min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana ñàkk ñoo ñi nga xam ne dañ leen a génn seen i kër su borom ay nettali kat dañ leen a génn seen i kër génn leen ci seen i alal dara waru la ko dul yabtaxuuna ña ngay sàkku fadlan ngëneel wa ridwaana ak ngërëm min allah wa yansuruuna allaha wa rasulahu di dimbale yàlla ko yonente ne ulaayika hum saadiqoon ñoo ñoo ngi dëgg ahlu suufa bañ ñëwee yonente bi alayhi salaatu salaam boole leen ci ab pukus ñu nekk fa amuñu fu ñu fanaan wala ñu fanaan ñi ñu fa lañ dajaloo abu hurayra bi ci la bokkoon abu hurayra ci la bokkoon am na ñoo xam ne ahlu suufa ñooñu ñoo leen gàllankoor ba nu dugg ci lislaam dañoo mu jox ñu wax sallallahu alayhi wasallam ne ko maanaam ñii nii bay boo ngeen boo leen dàqee rek ñu dugg ci lislaam ndax nag dañoo néew doole te nun ay borom personnalité lañu wax dëgg yàlla bu ñu dugg ci lislaam di ànd ak gaa ñi suñu borom ne ko wala tatrudi alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi bul fi dàq mukk ñi nga xam ne fii maanaam dañuy woo seen borom bil bil ghadati wal ashi suba ngoon ñi ngi neen yàlla te jublu yuriduna wajhu jëmam ji rek leen tax a jóg dem na ba àgg ci ne ko boo toogee ñoom sax wala tabghi aynaka anhum boo toogee ñoom sax dee leen xool dee leen xool xam nga léeg-léeg nit maanaam nekk ku yemamaay koo xam ne fii nit mën naa mën naa nekk kilifa ba nga xam du ko bàyyi xel sax day nekk ci jotaay ba ba kilifa gi jub waaye du ko bàyyi xel suñu borom ne ko wala tabghi aynaka anhum dee leen xool dee leen siggi dee leen xool man xam ne maanaam ñoom ci mbir mi lañ bokk ndax kat ñàkk sa xool boobu nga leen di xool dara warul ko la turiiduuna turiidu ziinata al-hayaati dunya saarub addina bi rek a tax nga bañ a xool waajee di xool ñi ci def wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawaa wa kaana amruhu furutaa kon loolu wax naa la ne gàllankooroon nañu bëree bëri ci ñi nga xam ne ndax ñu néew doole nga xam ne ñoom amuñu benn intérêt bu ñu sàmm ñoom alal yoruñu ko yoruñu daal amuñu lu ñu sàmm boo nee diine jàngoo ko rek ñu ak ñee nag am na ñu sàmm loo xam ne jàpp nañ ne maanaam ay intérêt la yoo xam ne si boo moytuwul buñ duggee ci diine ci mën leen ko xaj loolu moo doon gàllankoor ñu bëree bëri ci ñoom wa qaalu qulubana xulf ñoom nee nañ suñuy xol déggut li ngay wax am ñu ko firee ne mooy suñuy xol dafa am richaaw bu ci nekk mooy lu ko convertir loo xam ne si li ngay wax du mën a dugg ba tey daanaka wóoroowut ak lañ jàlloon ci ginnaaw maanaa wala ñu ne ibnu abbas nee na xulfun dañ koy dañ buñ demee laam gi ne xulufun jamoo xilaaf lay doon mooy suñu xol ci boppam ay ndab la ci bépp xam-xam waaye nag du bii ngay wax moom ndax nun danoo fees del nga soog a ñëw aw aw iyat li kulli ilmin fala naxtaaj ila ilmin sa xam-xam ak loo ci mën a kii yugul fees na du yàgg nga soog a ak loolu itam bu fas ibnu abbas moom la ko firi suñu borom subhanahu wa taala wax ne bal li am kay laanahum allahu bi kufrihim yàlla na leen yàlla rëbb ak seen kéefar googi laanahum allah yàlla ci boppam moo leen rëbb bi kufrihim ak seen kéefar googu maanaam al laanu bu bàyyi ko ci yàlla mooy tard muy dàkk la ci yërmaane yàlla ci yàlla musal fa qalilan ma yuminuun xataada nee na maanaam mooy laa yuminu minhum illa al qalil ñu gën ñu néew ci ñoom ñooy gëm fa qalilan ma yuminuun noonu la ko xataada firee mooy ñu gën a néew ci ñoom ñoo ci gëm te kat loolu moo ëpp ci li nga xam ne mooy am ngëm yàlla suñu borom da ko dàq ñi gën a bëri saxal ko ci ñu tuuti tuuti waaye ñooñee mooy tax sax mooy gàllankoor ñu ci def ba war leen dañ def ne kon léegi aksariya bi mooy ñi gën a bëri toujours lañ nekk rek mooy la wér suñu borom subhanahu wa taala daa wax ne wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah ñi gën a bëri ci kaw suuf boo leen toppee ñu réeral la ci yoonu yàlla wi in yattabi'una illa zan topp ñu dugul njort wa in hum illa yaxrusun tàndal rek la ñuy def xarsu mooy loo xam ne amu ci benn dalil su la laajoon tey boo ko waxoon daagal ñu laaj la ci waa li fo fo preuve ban preuve nga jàpp la ko wax dama ko dégg la lay wax suñu borom ne ne moytu su ma ne ngeen moytu ñi gën a bëri ci kaw suuf ngeen leen topp ñu réera leen an sabilillah ndax yoon wi kat daa yàgg sa ko fi indi woon daa yàgg boole junni at mën na ko yoon woo xam ne noonu la yàggee rek yow sax da ngaa war a lijjanti ba xam est-ce que yoon wi rëb fii ne bépp yoon woo xam ne fii am na junni at ak nangam ñu naan yoon yi moo jëm dëkk sàngam yoon yi moo jëm sàngam ba yàgg rek war ngaa toppatoo ba yàgg ne wala am junni at est-ce que maanaam fii ma jaar fii la ndax li gën a bëri ci fu ñuy jaar lu bëri noonu lay def kon ak sariya boobu suñu borom mosu ko ak yu benn yoon ci alquran su ko tag yu benn yoon ci alquran ci beneen barab luy gën a firi loolu wa qaalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una mimma tad'una ilay loolu sax mooy li ibnu jarir di mu fassir bu mag loolu la lëngal ci ne maanaam suñuy xool daal dafa nekk ci benn couverture boo xam ne fii moonu moonuy moo moo tax li ngay wax duñ ko mën a xam bal laanahum allahu bi kufrihim fa qalilan ma yuminuun borom bi ne demewut noonu de loolu ngeen di wax naan da ngeen a am xam-xam boo xam ne si da ngeen koo doyloo ba li yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax du ngeen ko jël demewut noonu de man ci boppam maa tàpp seen xol te dara warulu ko la dul bi kufrihim sababu seen kéefar nit bala laa jàppale ci dara day fekk ngay sabulu ca loolee borom bi gannaaw gis na ne ñoom ñi ngi wedd yàlla mu far bàyyi leen ca noonu fa laanahum allahu bi kufrihim fala yuminuuna illa qalila fa qalilan ma yuminuun ci beneen barab suñu borom wax surt ni fa ndax alquran ni muy firi ni lii di firee la ca def mu ne wa qawluhum qulubana gulf ñoom wax ji ñuy wax naan sunu xol ci boppam dafa dafa tëju demewut noonu bal tabaa allahu alayha borom bi ci boppam maanaam moo kaf sa xol yi moo kaf seen xol wala yuminuuna illa qalila loolu surt ni fa la ko wax kon am na itam ñoo xam ne ci mufassiruun yi danañu ko firee ne fa qalila ma yuminuun mooy kenn ci ñun sax farul gëm loolu waxinu arab la arab day wax ne qalla ma raaytu mithla hada qat néewaana bu ma gisee lu mel ni te fekk lam si julu mooy ma raaytu mithla hada qat mosuma gis lu mel ni sax far kon loolu mooy li ci gën a bëri ci loo xam ne si borom xam-xam yi wax nañ ko ci ay boobu yi ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين borom bi nee na walamma ba nga xamee ne jaahum ñëwal na leen kitaabun ab téere boo xam ne min indillahi ci yàllal bàyyi ko te téere boobee bàyyi ko fa yàlla man walamma jaahum mi ngi dellu ci yahudi yahudi la yàlla waxal ba léegi bàyyeegu leen walamma jaahum ba nga xamee ne ñëwal na leen ñoom yahudi kitaabun téere boo xam ne min indillahi mi ngi bàyyi ko fi yàlla tamit alquran yi yàlla wàcc ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ñëw mu saddiqun di dëggal li ma maahum li ànd ak ñoom te mooy tawraat te alquran weddiwut benn ci téere yooyee xanaa kay daa wax ne wa muhayminan alayhi da leen a domine ba yee feeñatu waaye weddiwut ci benn moom mu saddiqan dafa ñëw di dëggal li ma maahum li ànd ak ñoom muy tawraat moom i te wakaanu nekkoon nañ min qablu li jiitu alquran di wàcc yastaftixuuna di sakk ku dimbanikoo yàlla ci seen i noon yastaftixuuna di sàkkoo dimbanikoo yàlla ala alladina kafaru ci ñi wet yàlla loolu a waxin dana leer maanaam njëkk alquran di wàcc wala njëkk yonent bi alayhi salatu wasalaam di indi téere bii ñoom dañ daan dimbanikoo yàlla ci seen i noon ci sababu dikk bi yonent bi alayhi salatu wasalaam maanaam buñ daan xeex ak seen i noon dañuy wax ne innahu sa yubaasu nabiyun fi axiri zaman naqtulukum maahu qatla aadin wa iram ci mujjug jamono day yàlla dana yebal ndaw loo xam ne ci mujjug jamono danañ ànd ak ndaw loolu xeex ak yéen rey leen comme ni yàlla rey woon aad ak iram loolu kon ñoom yëgoon nañu yàlla dana yebal am ci mujjug jamono yàlla dana yebal ndaw yëgoon nañu yàlla dana yebal ndaw yastanfiruna bi majiihi ala aadaihi min almushrikin ida qaataluhum yaqulun innahu sa yubcasu nabiyun fi axiri zamani naqtulukum maahu qatla aadin wa iram jëlee nañ ci Saïd ibnu Jubayr mu jëlee ci Ibnu Abbas di mufassir bu mag bu ñu xam nee na yahudi yi giir gi ñuy wax Aws ak Xasraj bu yahudi daan xeex ak ñoom dañ leen daan wax ne leen xam naa ne day bu ngeen ñu mënee tey jii itam yàlla dana yabal ci mujj jamono yonente boo xam ne danañ ànd ak moom xeex ak yéen not leen ba yàlla yabalee yonente bi ne ñoom li liñ foogoon mooy yàlla bu yabal yonente bi ci ñoom seen giir la ko yabal par yàlla def yabal ko ci arab yi ñu far soxare loola ñu weddi ko weddi la nga xam ne moom la àndal Muaad ibnu Jabal ak Bishr ibnul Barra ak daawud ibnu salama wax ba saab yi lañ bokk mas nañoo wax yahudi ne leen ittaqullaha wa aslimu ragal leen yàlla te tuub ndax kat faqad kuntum tastaftihuuna alayna bi muhammadin wa nahnu ahlu shirkin wa tuxbirunana bi annahu mabuusun wa tasifuunahu bi sifatihi ragal leen yàlla ndax yéen njëkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñëw jamono njëkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñëw jamono daa ngeen ñu wax ne te booba fekk na ñun ay musrikoon lañ maanaam booba ñun ay bokkaalekat yàlla lañu woon daa ngeen ñu wax ne daa ngeen ñu wax ne yàlla dana yebal ndaw ci kanam daa ngeen ko melal itam ci melo woo xam ne si leer na kon lan moo leen moo leen gàllankoor bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee nangu leen a jël li muy wax waaye ba waxee loolu benn yowut ci ñoom ku ñu wax salaamu miskam ne maa jaana bi shay'in naarifuhu mboolem lu mu ne indil xamuñu xamuñu ko wa maa huwa billadi kunna nadkur lakum lañ leen daan wax bokkut ak lii mu ne indil maanaam suñu borom subhanahu wa taala wàcc ci ñoom aaya bi wala maa jaahum kitabun min indillahi musaddiqun limaahum wa kaanu min qabli yastaftuuna ala alladina kafaru alquran ne falamma jaahum ba mu leen ñëwalee ñoom yahudi maa la nga xam ne arafu bi xam nañ ko comme niñ xamee seen i doom comme niñ xamee seen i doom yu góor yaarifuunahu kama yaarifuuna abnaahum ni ñu xàmmee seen doom yu góor yi noonu la ñu xamee ne yonent bi alayhi salaatu salaam yi li ñu wax dëgg la wala maa jaaw ma arafu bihi kafaru bihi taxawaay boobu rek jàmm da nga ko wedd fa laanatullahi borom bi ne bëggalum yàlla alal kafirina dal na ci kaw ñi nga xam ne ay yéefar bi kon melo la woo xam ne moo tax suñu borom subhanahu wa taala sax merale mooy ñu indil ko ak dëgg ba mu xam ne lii ak dëgg la ba noppi mu weddi ko te weddi googee mu ko weddi itam amu ci benn dalil bu leer wala maa jaahum ba mu leen ñëwalee maa arafu kafaru bihi dañ ko wécc fa laanatullahi ala alkafirin laanatullahi ala alkafirin wax naa la alquran wax ne fa laanatullahi ala fulanin wa ala fulanin wa ala fulanin déedéet rëbbum yàlla yàlla nekk ci diw tudd tur wa tudd tur wa tudd tur wa jëru ko melo wa nekk ci moom rek koy déedéet moo tax ala alkafirin lay wax ala kulli man ittasafa bi sifatil kufri laanatullahi alayhi wa ala kulli man arafa anna hada huwa alhaq fa raddahu képp koo xam ne lii mooy dëgg ba noppi nga raddu ko ba tey kon jëm yow yi teelu yàlla ba léegi borom bi subhanahu wa taala wax ne bi sama maa jooju waxinu arab mi ngi mel ne inna allah ni'ma ya'idukum bi bi sa bon na maa la nga xam ne ishtaraw wecceekoo nañ bi ci moom anfusahum seen bopp maanaa dañoo jënd dëgg ak neen nëbb li nga xam ne moom la yàlla wàcce woon ci yonent bi alayhi salatu wasalaam mufassiruuni ku mel ne as-Suddi mi ngi wax ne bi sama ashtaraw bihi anfusahum li muy tekki mooy bi sama faadu li anfusihim faradu bihi wa adalu ilayhi min al-kufri bima anzala allahu ala muhammadin an tasdiqihi wa muwazaratihi wa nusratihi bon na lool la nga xam ne moom la ñu wottee seen bopp gërëmal ko seen bopp bon na lool la ñu gërëmal seen bopp bàyyi fi li nga xam ne moo di ak dëgg jeng jëm ci ak kéefar te weddi yonent bi alayhi salatu wasalaam ci bañ koo dëggal bañ koo dimbale bañ koo taxaw ci genn wet loola nag dara warulu ko ñu def ko lu dul ak mbewte ak coxorte bi isa masfaro bi anfusum an yakfuru ci ñuy weddi bi ma anzala allahu li nga xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko wàcc ngir lan bagiyan ngir ak mbewte li ajli an yunazila allahu min fadli ala man yashaa min ibadi mbewte goo xam ne moo leen gàllankoor ba nangu ñoo jël la nga xam ne yàlla wàcce na ko ci ak mbaaxam ci ko ko soob ci biir jaamam yi bi isa masfaro bi anfusum an yunazila an yakfuru bima anzala allahu baxyan an yunazi baxyan ngir bew an yunazila allahu ci yàlla di wàcce min fadlihi ci ngëneelam ala man yashaau ci ku ko soob min ibaadi ci ay jaamam maanaam daal ñoom dañoo jàppoon ne wax yi bu ñëwee ci seen biir du ko génne yàlla génne ko ci seen biir jox ko keneen ak ci geneen giir loola moo leen gàllankoor ba mënuñoo gëm borom bi subhanahu wa taala wax ne fa baa u dellu nañ baa a nag ci alquran foofu gis xamal du ànd ak maanaam yiw baa aji alquran du ànd ak yiw moom kenn wa baa bi gadabin gis nañ ko wa baa bi gadabin maanaam toujours baatu baa a gis ni dellu lu ko alquran jëfandikoo lépp musiba la ko jëfandikoo fa baa u dellu nañ bi gadabin ala gadabin mer mu tagu ca kaw mer ibnu abbas nee na fi l gadabi ala al gadab fa gadiba alayhim fi ma kaanu dayaau min altawrat wa hiya maahum mer mu njëkk mi mooy tawraat yi leen yàlla joxoon ba noppi ñu sànq ndax buñ jëfe woon tawraat faaw ñu gëm yonent bi alayhi salatu wasalam ndax tawraat daf caa nekk luy wane ne yonent bi alayhi salatu wasalam dana ñëw bar alquran boo gisee muy wax ci biir naan qul yaa ahlal kitaabi lastum ala shay hatta tuqimu tawraat wal injil loolu bul jàpp ne buñ taxawalee tawraat ak injil dana noo bàyyi dana noo mën a bàyyi seen diine ji jubluwul loolu de ndax faa buñ ko taxawalee rek bàyyi bàyyi seen tawraat bàyyi seen injil fekk si ndax tawraat ak injil lañ leen lam leen di imposé mooy ngeen bàyyi seen li fekk cee moo tax faa boo gisee alquran mu naan yéen ñi nga xam ne yéen ay ahlul kitaab yéen lañ wàccoon ci yéen kitaab nekku leen ci dara lu dul ne da ngeen a taxawal tawraat ak injil bu defee ne ñoom buñ ko taxawalee rek danañ mën a doy loola wala suñu alquran yi wa illa fa boo xamee ne jëfee nañ la ca nekk rek faaw ñu bàyyi seen téere yooyu fekk si li nga xam ne mooy alquranul karim kon mer mu njëkk mi mooy tawraat bi nga xam ne dañ koo sànq te mu ànd ak ñoom ak itam meneen meru ñaareel mi mooy weddi gi ñu weddi yonente bi alayhi salatu wasalaam bii nga xam ne suñu borom daf ko yebal ci ñoom kon baa u li ñuy tekki mooy istawjabu wastaxaqu wastaqarru bi gadabin ala gadab maanaam yelloo nañ daal bi gadabin mer ala gadabin mu nekk ci kaw am mer abul aaliya kenn la ci mufassiruun yi nee na gadabullahi alayhim bi kubri bil injil wa isa merum yàlla mu njëkk mi mooy weddi gi ñu weddi injil ak isa merum ñaareel mi mooy weddi gi ñu weddi yonente bi alayhi salatu wasalaam ak ak alquran waaye daanaka war a wut ak wax ji njëkk ja suñu borom subhanahu wa taala mere leen ci loolu yi ku ñu wax suddi yi ci leen ci mufassiroon yi la bokk nee na xadab bu njëkk bi mooy ba ñuy jaamu sëll wa te loolu jàng nañ ko danañ ci waxaat insha allah muy aay yi ci topp ba leen yonte yàlla Moussa bàyyee di deeyaale boromam jikki fekk nekk aw sëll am na ci diggante wu ñuy jaam kooku mooy mer wu njëkk bi merum ñaareel bi mooy ba ñu weddee yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu ak suddi yi wax ah bi nga xamee ne nag seen kéefar googu weddi gi ñu weddi dara ndax nit saa buy weddi dara ñaaree tax mu weddi ko benn mu weddi ko ngir ne lii ci boppam dafa du dëgg te boo ko laajee lu tax du dëgg danaan la dafa am loo xam ne mu ngi nii ci alquran luy wane ne lii waa jox du dëgg wala am na ay preuve yu leer yu wane ne lii du dëgg wala mu weddi ko ngir ne maanaam loolu ci boppam ak soxorte aku kéefar loolu nag ba nga xamee ne moo tax ñoom ñu weddi alquran suñu borom ne walil kafirina adabun muhin wa adabun bugal muhinun mu mën a doyadil moo xam ne si maanaam bu bu ñuy mbugal kooka da nga naan xanaa kii du borom pouvoir boobu yooyu nga doon xam mu yéen mu koy doyee di dugal ko ci ihaana lil kaafiriina ñeel nañ képp koo xam ne yaa ngi melawoo melawoo yi nga xam ne mooy melaw kufur lil kaafiriina azaabun muhiin xam nañu azaabun jooju mooy mubtada di naat azaabun ji lu tax kenn du ci tàmbalee wala yajuuzu libtidaa bi nakira maa lam tufit inda saydin nanira borom alfiya loolu la wax kenn du tàmbalee ci nakira azaabun lu xanaa bu bu fekkee ne dañ ko wasful te fii wasful nañ ko azaabun muhiin mi ngi mel ne wala abdun muminun ci alquran dañ ko wutalee wasful dañ ko mën a tàmbalee adabun muhinun lil kafirin maanaam mbugal mu tar mbugal mu mën a doyee di lil kafirin ñeel ñooñu nga xam ne ñoo weddi seen borom subhanahu wa taala wa ida qila lahum buñ leen waxee ne leen aminu gëm leen bi ma anzala allahu li yàlla wàcc suñ borom nee na yahud yi ak ñëpp ñoo xam ne ñoo bokk ay melo ci ahlul kitab soo leen waxee ne leen gëm leen yàlla li yàlla wàcc ci yonent bi alayhi salatu wasalam te dëggal ko xaalu ñu wax ne numinu bi ma unzila alayna nun dañuy gëm doyloo li ñu wàcc ci ñun benn yoon kon ab téere am nañ ko di xanaa bu ngeen luy gëmloo da ngeen ñuy gëmloo ko amul téere seen alquran yi waxtu ne mu ñuy tudde yaa ahlal kitab ba noppi ngeen bëgg loo bàyyi loolu suñu téere bi ngeen ñu gëm seen téere bi nu'minu bima unzila alayna nun kay dañuy gëm li ñu wàcc ci ñun li ñu wàcc ci ñun dañuy gëm wa yakfuruna danañu weddi bi ma waraahu lépp lu ñëw ci ginnaaw lu ñëw ci ginnaaw maanaam injil mbaa tawraat lépp lu ñëw ci ginnaaw rek gëmuñu ko ñun doy loo nañ sëkk li nga xam ne mu la yàlla wàcc ci ñun qaalu nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima waraahu te kat weddi gi ñu weddi li ñëw ci ginnaawam danse bi ci nekk mooy wa huwa al xaq maanaam la ñuy la ñuy weddi bu fekkoon ay caaxaan la sax waaye waxuwal xaq la ñuy weddi dëgg la mooy alquran te itam dëgg la doon ba noppi nekk dëgg gu maandu ndax dëgg la goo xam ne si dëggalul boppam bàyyib jàmbur waaye daa nekk dëgg ba noppi dëgg laat seen téere yooyee musaddiqan lima maahum seetlu li li alquran wax ba nga xamee ne boo leen wooyee ne leen kaay leen gëm li yàlla wàcc ñu ne la nun dañuy doy loolu li yàlla wàcc fi ñun dama ne xatar bi nekk ci loolu mooy su fekkoon ne sax li nga leen di woo da du dëgg nga mën a wax waaye woowal xaq li nga leen di woo ak dëgg la ñaareel bi itam day dëgg gu maanu ndax mu saddiqun day dëgg li ma maahum li ànd ak ñoom te mooy tawraat wane ne tawraat moom i alquran ci suñu borom la bàyyi ko waaye nag la la la ca xew rek mooy wa muhayminun alayhi da leen a noot ba nga xam ne kenn jëfeetul la ca nekk loolu rek la woowal xaq mu saddiqun li ma maahum maanaam xam nañ ne li ñu wàcce ci yonente bi alayhi salatu wasalam dëgg la goo xam ne dafa ñëw di dëggal liñ àndal muy tawraat ak injil kon nag fal xujjatu qaimatun alayhim kon moom aw lay taxaw na ci seen kaw comme ni suñu doon waxee ci beneen aaya ne alladina aatinaahum alkitaba yaarifunahu kama yaarifuuna abnaahum ñi nga xam ne dama leen indil alquran ñu xam ko niñ xàmmee seen i doom ba noppi nanguwuñ koo jël suñu borom ne leen su fekkee ne yéen li ngeen yor moom ngeen bëgg a doyloo muy tawraat mbaa muy injil su fekkee ne maanaa moom ngeen bëgg a doyloo te bëgg a jëfe la ca biir qul waxale yonent bi alayhi salatu wasalam laaj leen kon fa li ma taqtuluuna anbiyaa allah lan moo waral kon ngeen di rey anbiyaullah kon am na lu xew gannaaw yow nee nga maanaam man lii ñu wàcc ci man doyloo naa du ma ci jéem a dolli dara te beneen yonent bu ñëw boo xam ne bàyyi ko ne ci suñu borom subhanahu wa taala nga di ko fexeel ak a rey qul fa li ma taqtul qul fa li ma taqtuluuna anbiyaa allah ñu dem in kuntum sadiqina fi da'wakum al iman bima unzila ilaykum falima qataltumul anbiya alladhina ja'ukum bi tasdiqi tawrati allati bi aydikum wal hukmu biha wa adamu nasxiha wa antum ta'lamuna sidqahu bu fekkee ne dëggu ngeen ci li ngeen di woote muy gëm ngeen li yàlla wàcc ci yéen kon lu tax ngeen di rey anbiyaaw yi nga xam ne ñoom biñ ñëwee dañoo dëggal tawraat jooju nga xam ne mu nekk seen i loxo di ko at di di dëggal atee ca nekk wa adamu nasxiha ak ak ñàkka nasxoom ta wa antum taalamuna sidqahum qataltumuhum baghyan wa inaadan wa istikbaran ala rasulillah falastum tattabiuna illa mujarrada al ahwaai wal aaraai wa tashawi wa tashahi kon su fekkee ne tawraat la ca nekk sunu alquran ji nangu na koo dëggal waaye la ca dollee ko rek mooy daf koo not ba nga xam ne kenn duutu ko atteet kon lan moo waral ngeen yëg ne sunu alquran ji mi ngi dëggal seen alquran ba noppi ñi indi alquran ji moom ngeen leen di fexee rey loolu mooy wane ne kon ci njowte ngeen nekk ak topp bànneex mooy li joxoon ci ginnaaw rek afa kullu ma jaakum rasulun bi ma la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun abu jaafar ibnu jarir kenn la ci mufassiru ni nee na qul ya muhammadu lyahudu bani israil ida qultu ida qulta lahum aminu bima anzala allah qalu nu'minu bima unzila alayna lima taqtuluna in kuntum mu'minina bima anzala allah anbiya allah ya ma'shara alyahudi wa qad harrama allah fi alkitabi alladhi unzila alaykum qatlahum bal amarakum bittibaihim wa taatihim wa tasdiqihim wa dalika min allahi takdimun lahum fi qawlihim numinu bima unzila alayna loolu firin mu rafet la nee na boo leen waxee ne leen gëm leen li yàlla wàcc dañ lay wax ne la nun dañuy doyloo li nga xam ne moom la yàlla wàcc ci ñun kon laaj leen lu tax su fekkee ne dëggu nañ ci li ñuy wax lu tax ñuy rey anbiyaullah suñu borom araamal ci seen téere ci seen téere yi ñu rey anbiya yi bal sax bal sax da leen a digal ne leen da ngeen topp anbiya yi te leen dëggal ci la nga xam ne moom la ñuy wax قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات borom bi subhanahu wa taala dellu wax ne Moussa joxoon naa ko ay bayinaat ay bayinaat mooy al ayat al waadihat wa dalail al qatiat ala annahu rasulullah joxoon naa ko ay firnde yu leer joxoon naa ko ay tegtal yu leer yu mën a dog sikki ci ne maanaam ndawul yàlla la luy wane ne itam benn buur amul bu dul yàlla ayaat bayinaat yooyee bokkoon na ca tuufaan jaraat xummal dafaabi dam al afa al yaddu ak farqul baxri ak tasliluhum bil gamaami wal man juróom ñeent la yoo xam ne moom la ko yàlla dëgëral woon benn tuufaan géej goo xam ne dafa jékki-jékki rek wan na wan na looloo xam ne fii ci aw nit kenn xamu nuñ toll ak ay jaraat ay njéeréer yoo xam ne su borom da ko yabaloon ci ñoom ndax lii kat saa bu ne buy waaj a dal ci ñoom itam Muusaa da leen ko wax dëgg leen nangam dëgg leen nangam ñu lànk mu woo suñu borom subhanahu wa taala indi loolu ñu toppale ko ba man juróom-ñeenti ayaat yoo xam ne fi benn bu leen ci dett loo ginnaaw amul ñéréer yoo xam ne fi àgg nañ foo xam ne maanaam loo yëkkati di ko naan sax ñu dugg ci biir ak ay xumman wute nañ ca dafaati ay mbott yoo xam ne lii la gàllankooroon ba nga xam ne fi booy dox sax dañ dañ ci jaar ci kaw deret yoo xam ne dafa jékki-jékki tasaaroo ci biir dëkk bi deret maanaam yet wa ma fa joxoon mu ci doon jommale ci bu ko sànnee maanaam mu wan ne yet yi ca def yëpp loxo bi nga xam ne bu ko ma sànni yëkkati fa idaa ya bay ba mu weex sàll maanaam te nit Moussa nekkutoon nit ku weex ak itam géej gi ma ko xaraloon ñaareel bi itam wàcc gi ma wàcce woon niir yi mu leen di keral ak wàcc gi ma wàcce woon manu ak ak ak salwa yooyu mooy ayatul bayinaat yi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala joxoon na ko yent yàlla Moussa waaye loolu lépp taxul ñooñu ñu gëm ko maanaam kon ñàkk gëm day mel ne loolu gëm mooy cosaan ci nit waaye yi gàllankoo nit ba du gëm bari na lool wala qad jaakum Moussa bil bayinaat ànd ak nag la ma koy jox muy firnde yu leer yëpp téewut su ma taxasumul ijla ngeen jàpp aw sëll di ko jaamu min baadihi ci ginnaaw bu leen fa bàyyee di deeyale ak borom loolu waxoon nañ ko ca ba ñuy toll ca suratul baqara xisa bu gudd la xanaa ci gàttal mooy ku ñu wax saamiri yu alquran net ne ko suratu Taaha jibril dafa taxaw war ci lu mel ne far mu gis ko te nit ñi gisuñu ko mu xam ne jibril du yaram ruux la fa fa foote woon tànkam mu tibb ci mu tibb ci fekk am na lu mu liggéey yoon loo xam ne aw sëll la maanaam maanaam forme bi forme forme forme aw sëll la da ko liggéey ba mel ne aw sëll sëll mooy doomi nag bu jigéen mu liggéey ko ba mel noonu mu daal di jël suuf sa sànni ko ci mu ko ci sànnee rek la ko xuwaar mu tàmbali di nañ comme ni nag di nañ mu ne leen nag haada ilahukum wa ilahu Moussa kii mooy seen yàlla mooy yàlla yi Moussa Moussa niwu ko ndax Moussa nga ca moom déyaale borom bi subhanahu wa taala ma ngi déyaale yàlla suñu borom subhanahu wa taala ci ni mën a tontoo mu ne ñoom day dañoo am xel afala yarawna alla yarjoo ilayhim qawla xanaa dañoo gis ne maanaam loolu li muy naññ naññ téewut boo ko doon wax ne ko yow nag sax du la tontu xanaa yarawna an laa yarju ilayhim qawla maanaam bu ñu doon wax ñoom du leen tontu wala yamliku lahum nafan wala duran wala nafa daran wala nafa borom bi nee nañ moom daa yoru seen lor yoru seen njëriñ borom bi ñu ko jàpp wala yamliku lahum daran wala nafa ba yonent yàlla Moussa ba mu ñëwee moom daal tiit sax alluwa yam yoroon sax ñu bindoon ca tawraat bi mu dikkee da ko sànni bi mu dikkee fekk ñu jaamu aw sëll dafa tiit ba nga xam ne maanaam wa alqal alwaax alwaax yam yoroon da ko fas da ko wàcc dafa tiit ndax loolu kat mooy taxawaayu képp koo xam ne xam nga ku yàlla ba noppi ñu koy wutal morom loolu mooy taxawaay ku xam ku yàlla ñu di ko wutal leneen lu bokk tak moom loolu moo war a nekk sa taxawaay ndegam sa iman wér na kat laa wax wa axada al alwaax yootu wa axada bi rasi axi yajruhu ilay maanaam Haaruna mi fa bàyyi woon te gaañu not ko ndax Haaruna ma nga li ci gën a doy waar mooy Haarun ci aaya boobu maanaam ngir lii leer ci suñu bopp afalaa yarawna an laa yarju ilayhim qawlan wala yamliku lahum daran wala nafa wa laqad qaala lahum Haaruna min qabl yaa qawmi innama futintu bi Haaruna waxoon na leen ne leen yéen soow nit ah ñu ngi leen di waaj fitnaal de lii de fitna la ndax loolu fitna la nag boo xam daa jekk-jekk rek nit ñëpp wëlbatiku di ko jaam loolu fitna la innama futintu bii wa inna rabbakum rahman seen borom yàlla kat wa inna rabbakum rahman yàlla ci boppam seen borom mooy arrahman fattabiuni topp leen ma wa atiu amri topp sama sama digal lii kat digaluma leen ko Moussa dem na bàyyi na ma fi waaye xam naa ne lii fitna la loo xam dafay yeewu topp leen ma seen borom mooy rahman lu ko wax lan nabra alayha akifiin xatta yarja ilayna Moussa ñun fii la ñu taxaw di ko jaamu ba Moussa ñëw lan nabra alayha akifin xatta yarja ilayna Moussa xanaa Moussa ñëw bu Moussa ñëwee bu ñu waxee ne lii du lu ñu jaam ñu bàyyi ko xool baat bi ñu jëfandikoo lan lan duñ ko bàyyi mukk mukk xatta yarja ilayna xanaa Moussa ñëw bu Moussa ñëwee ne ya Haarun ma manaaka id raaytahum dallu an la tattabiani Haarun ana lan moo dox sa diggante ak ba nga leen gisee ñuy def lii nga bañ maa topp man maa manaaka id raaytahum dallu gis nga réer la ko yàlla tuddee id raaytahum dallu ba nga leen gisee ñu réer lan moo doxoon sa diggante an la tattabiani nga bañ maa topp man avancé ka am ri ndax da ngaa mën ndax da ngaa moy sama ndigal qaal qaala yabna umma la taaxud bi lisiyati bul téye ci sama sikkin bi mo dafa Haarun dafa yoroon sikkin bi gudd gudd mu ne ko bul jàpp sama sikkin bi wala bi si bul téye ci sama bopp bi ndax Moussa daa jàpp ci bopp di ko xëcc jëmale ko ci yadruhu ilay inni xashitu an taqula farraqta bayna bani israila wa lam tarqu qawli qaala fa maa xabuka ya Saamiri Moussa kii wutal na ko aw lay ngir ne ne dafa bañ gaañu séddali ko ay pàtt ñee nekk fe ñee nekk fe mu ñëw ci saamiri yu mi def mbir mi moom nga xam ne mooy tooxi doon gi moo ko def maa xam bu ko yaa saamiri saamiri nag la tontu ne man basa basurtu bi maa lam yubsiru bi damaa gis luñ gisul jibril laa gis mu taxaw war ci fas ma gis ma gis mu wóor ma ne maanaam loolu sax ba ma koy def maanaam sama bakkan ma ko wax rek sama bakkan moo ma moo ma rafetal ne maanaam lu lu di ruux kooku xëy na ku jël ci moom dara maanaam boo ko defee ci dara mën naa am am ruux loolu sama bakkan rek moo ma ko wax basurtu bi maa lam yubsiru bi fa qabattu qabdatan min asari xaafiri farasi rasuli loolu lañ fi taqdir fa qabattu qabdatan ma ñëpp ab ñëpp min afari xaasiri farasi rasuli ci alquran liñ fi taqdir foofu ma ñëpp ab ñëpp ci jeexitalu weew fasu ndaw loolee muy jibril ma sànni ko ci wa kadalika sa wala li nafsi sama bakkan loolu la ma rafetal rek man ma def ko Moussa lu mu ko wax qaala fadhab fa man tabi qaala fadhab fa inna laka fi lxayaati an taqula laa nifas yow kay li ma lay fayee mooy génnal dëkk bi wala sax boo fekkee yaa ngi ci dëkk bi ku lay waajal laal ne ko bu laal di sax bul ma laal doomu aadama mënut a ñàkk a jaxasoo doomu aadama yi waaye ku la jege rek ne ko xijji ma bul ma laal loolu mooy som yow loolu lañ lay fayee fa inna laka fi lxayaat an taqula laa bitas wa inna laka mawidan lan tuxlafa wandur ila ilahika alladi zalta alay aakifa kaay nag nga xool sa yàlla ji gis nga nu niwul ila ilahi de ila ilahika kaay xool sa yàlla ji nga xam ne naka jekk ci nga saxoon di ko jaam lanu xarriqannahu danaa ko lakk gis nga laam gi laam gi xeddileel nuun gi noonu ko xeddileel summa la nan sifannahu fil yamin asa ba noppi nag maanaam boxoñ ko ba nga xam ne si kenn xamatu dara ma sànni ko ci géej loolu kat mooy taxawaayu képp ku gis loo xam nar naa fitnal li ñi nga def ko noonu wa illaa fiig doomu aadama yi gis nga boo taxawoon bu ñu doon am lu ñuy jaam loo xam du yàlla ba ngeen ko ci seen xol nga dem ba aayee leen ko te loola te loola jógewu fa te loola jógewu fa feeg ñoo ngi koy gis mënuñ ca delluwaat moo tax Moussa taxawaay bu ñu yor mooy da koo lakk ba noppi sànni ko ci géej suma suma la nan sano fi liamin asa ne leen nag innama ilahakum alladi la ilaha illa hu wasa kulla shay'in ilma seen borom mooy yàlla mi nga xam ne fi benn buur amul bu dul moom te nag xam-xam àgg na fépp wasa kulla shay'in ilma kadalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq noonu laa lay nettalee man yàlla xibaar yi ñu jiitoo qad adaat wa qad aataynaaka min ladunna dikra waaye saa boo xamee ne luy min na fitnaal nit ñi bàyyi nga ko fi day dem ba ñu delluwaat seen fitra ci delluwaat moo tax yent yàlla Seydina Omar ba fi yent sallallahu alayhi wasallam jógee mu jeg-jeg rek gis mbooloo mu bëree bëri jëm ci ak garab mu ne ñi buñ jëm ñu ne ko bayaatu ridwaan garab ga nga xam ne fa la yonent bi alayhi salatu wasalam saxaaba yi doon jaayante moom fa lañ jëm dañ ko ziyaare ji mu bàyyi wu fi ca dara waaye ci suba sa mu dem dagglu ndax xam ne ne mën naa dem ba jimmi jamono ñu far si yam fa bàyyi yàlla jàpp ne garab bi day lor mbaa day jëriñ te adurru wa nafu min arrahmani laysa min albidaadi wa sudaani loolu njëriñ ci yàlla rek lay bàyyi ko loolu yi la ci doon daw moo tax mu lakk moom la alquran di junj fii te nett nañu ko fële mu le mu gën a leer mu gën a leer nett waa nag ci suutul araf feneen foo xam ne fii maanaam bi sama xalaftumuni min baadi aajibtum amra rabbikum waaw leeral laa na ko ci leeral bu gën a gaaw bu gën a bu gën a leer bii su ma taxa sumul ajra min bari wa antum zalimun te fekk jamono bi ngeen di def loolu yéen da ngeen a tooñ seen borom ndax kat ak bokkaal yàlla tooñ la nit moomu jëmmam nit moomu jëmmam nit yàlla ko moom qul inna salati wa nusuki wa mahyaay wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bi dalika umirtu sama julli gii wa nusuki qul inna salati wa nusuki nusuk mooy lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla la wa mahyaay sama dund gii wa mamaati ak sama dee gii lépp lillahi rabbil alamin yàllaa ko moom mi borom mi neeti la sharika lahu kenn du ci bokk moom dara loolu lii nag lañ ma digal man yonente bi alayhi salatu wasalaam wa bi dalika umirtu damaa njëkk a topp ndigal wa ana awalul muslimin loolu lu ko digal moom la ma digal di wa bi dalika umirna wa umirna li nuslima li rabbil alamin ñun ñëpp lañ digal ñu womatul yàlla wa umirna li nuslima li rabbil alamin ni nga xam ne sa xol bi ni muy def nii tëf tëf jooju bi mu ne ana kan moo ci am irada ana kana am ci xolam maanaam noonu muy tëf tëfee maanaam mu mën koo naj ba ne ko doo ko def ana kana am ak noteel ci boppam ba maanaam noyem yi mu ne ko fii ngay taxaw kon yow kii jëf ci yow ba ëpp la doole qul huwa alqaahiru ala kulli shay qul huwa alqaadir huwa alqaahiru fawqa ibaadihi man maa not sama jaam yi huwa alqaahiru fawqa ibaadihi moo not jaam yi moo tax lu jumtukaay yi bëri bëri bëri bëri bëri mënoo fexe fexe fexe fexe ba li yàlla di war a dogal nga wutal ko jumtukaay boo xam ne si dana ko mën a calmer dana ko mën a calmer parce que démboo jaay ci Iran ab tremblement de terre zalzala boo xam ne fii maanaam onze secondes la ko def la mu fa yàq kenn xamul nu mu toll tëj suufam maanaam jël ay gars yi dugal leen ci biir tëjaat suufam mu jeex te kat loolu waxoon na ko nee woon na man rek am kattan ci yabal ci seen kaw min fawqikum ci seen kaw ay dënn yoo xam ne bu wàcce kenn du ci mën dara aw min taxti arjulikum wala ci seen ron tànk yi muy zalazil yooyu wala sax ma teqale leen ay parti ñee nekk parti sangam ñee nekk parti sangam ba noppi nag du ma yem ci loolu waaye wa yudiqu ba'dukum ba'sa ba'd kenn ku ne di mos ay morom fi mu ne kenn ku ne yaa ngi ko ay kenn ku ne yaa ngi ko ay waaye bu ngeen teqali ko rek kenn ku ne mos ay morom su ngeen teqal bu ngeen àndoon nag du ngeen xam seen ay fii mu ne nit bu ñu àndee duñ xam seen ay ndax dañuy bokk lañ bëgg waaye bu ñu teqali koo kenn ku ne moo sol ay morom wa yudiq ba'dukum ba'sa ba'd unzur kayfa nufarriqu al-ayati la'allahum yafqahun kon yàlla maanaam noonu muy def nga xam ne noonu la ñu note noonu la ñu war a xamee suñu bopp nit na xam boppam mooy fa mu tàmbalee moo tax yàlla di ko fàq lu bëri bëri falyanzur al-insanu mimma xuliq nit na xool ci lu ma ko bind waay xuliqa min ma'in dafiq maa ngi ko bind ci ndox moo xam ne ba muy génn da doon puusu doon génn ci diggante ndigg ak ay taraayib mu bay ni sulbi wa taraayib mooy ay dindi baat yaxruju min bayni sulbi wa taraayib feneen mu ne fal yanzuru l insan ila taami nit na xool li muy lekk nit na xool li muy lekk su bàyyi ko nit na xool li muy lekk inna sababna al maa sabba man yàlla maa sotti ndox mi mu sotteeku sotti ndox mi mu sotteeku yow ma ja waaye suuf si wax dama koo xar summa shaqaqna al arda shaqa ma xar suuf si ba nga xam ne ci maanaam fa ambatna fiha habba wa inaban wa qadban wa zaytun wa naxla wa xadaaiq qulba wa fakihatan wa abba lépp mataan lakum yéen a ko moom seen bànneex la wala anaamikum ak seen jur gi beneen bi ne kulu lekk leen waraaw anaamakum te ngeen sàmm seen gàtt ki def loolu koy wax dëgg yàlla defee lu suñu dara beneen nee na wa aataakum min kulli ma saaltumu lépp lu ngeen ma doon ñaan defal naa leen lépp lu ngeen ma doon laa jox naa leen wa in taawudu ni'matallahi la tuhsa bu ngeen doon jéem nag di jéem a maanaam lim sama xéewal yàlla yi ci moom laa tuxsuha du ngeen ci mën mën a takk loo mën a takk nag doo ko mën a fan waaye lam ca teg innal insana la zalumun kafar doomu aadama ku bari tooñ la doomu aadama ku mën a weddi la innal insana li rabbihi la kanuut doomu aadama ak boromam kanuut la kanuut mooy jaahilu ni'ma xéewal boobu dafa mu weddi mën naa xam sax lii doolu yàlla way di yaarifuuna ni'matallahi summa yunkiruunaha xam ne lii xéewal yàlla la bay ko fuulu yàlla ba noppi maanaam mënuñu ko yàlla fale wa aktharuhumul kaafiruun am na aaya boo xam ne daw na yaram lool fépp boo xam ne xam nga suñu borom subhanahu wa taala danu nu génne sax fii nu nekk tuuti ca ata amrullah فلا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى ما يشركون خلق الإنسان من نطف من نطفة يلا نجي بين دوم آدم من نطفة تقوي باي كتكور waaye fa ida huwa amul lu may moom ndeke xasim la dagg fanteeg boroomam ci la dëkk li yàlla def maanaam dana ko lijjanti waat ida xasim du xasim bu bu nëbb sax xasim mu diin la maanaam xasim bu leer ila wa xasim mu diin li ci topp wal anaama xalaqaha ah wal anaama xalaqaha jur gi moo ko bind moom yàlla lakum xalaqaha lakum wal anaama xalaqaha jur gi daf koo bind lakum fiha dif difkun jur gi ci boppam da ngeen ci mën di nugguloo da ngeen ci mën di nugguloo da ngeen ci mën a rabbu ay yére yoo xam ne bu sedd bi jotee ngeen sol ko lakum fiha dif wa manaafi amaana yeneen njariñ sax yoo xam ne bokkut ak nduglu googu rek ndax wa minha taakuloon ci ngeen di lekk wa lakum fiha jamaal ndax nit solu ba jekk war aw fasam ca booba wala sol ba jekk war ci gileemam ca booba loolu jamaal la ku fiya jamaal xiina turixuun wa xiina tasraxuun bu ñuy yendu fi ak bu ñuy gont lépp li ci gën a doy waar mu ne wa taxmilu asqaalakum ñoom jur googu ñooy yenu seen yu diis yi doomu aadama li mu yore ci bagage ma nga ca barab sàngam bagage yu bëree bëri soxla na ko waaw boo ko bëggoon a yenu dana metti de taxmilu asqaalakum mooy yenu seen diis diis yi tamit asqaalakum ila baladin yóbbu ko ci réew moo xam ne lam takunu baaligihi illa bi shiqil anfus bu dul kono yooyu ba da ngeen ci àgg da ngeen da ngeen sonn de illa bi shiqil anfus yes ni yenn sax ceeb boo xam ne fi maa ci diggante bi rek la yor la ko yanoo daf ak seen maanaam daal di toog jaaxal kooku buñ jëloon bagage bi yëpp yan ko ko nu muy def illa bi shiqil anfus daal ne inna rabbakum la raufur rahim seen borom ku bëri yërmande la seen borom ku am rësa la كلا جل ما تبقى يبوي على الله يقصد السبيل ومنها جائر ولو شاء الله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم ما يكيد الواتي أم له هو الذي أنزل من السماء ماء لكم ما يكيد الواتي أم له بايكو أسمان لكم ينكم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لين دينان تلي بايكو ومنه شجر جربي يفما بيفهر وفيه تسيمون ينبت لكم به الزرع نعمه كلي فحله meññat wala mbay mi wa zaytun wa naxil wal anab wa min kulli samara meññat yëpp ci laa koy soxla inna fi dalika la ayat li qawmi yaqilun wala yatafakkarun foofu de ay cimtaan a ngi fi waaye ñi xalaat inna fi dalika la ayat li qawmi yatafakkarun ñi xalaat ay kiibaan a ngi foofu de wa faxara lakum lay tàggatal leen guddi gi nun daal dafa mel ni que rek danoo toog nii rek yàlla di def li ñuy def rek guddi gi ñëw ba gi di def danoo toog noonu rek muy def li ci def lépp kulla yawmin huwa fi sha'nin saxara lakum lay tàggate leen guddi wa shams tàggate leen jant bi jant bi yiw ne bu am na nu muy jegee rek nit faatu am na nu muy soree duñ ci mën a jëriñ loolu moo ko tàggat saxara lakum lay la wa nahaar wa shams wal qamar bëccëg yi da moo ko tàggat fii mu ne te su surut na bay dane wa ja'alna nahaara maasha maa def bëccëg gi muy fàggukaayu dund mooy maanaam nit ñi kenn ku ne dugg dugg ci bëccëg gi wa jaal na layla libaasa guddi gi ma def ko muy yéere kenn ku ne ci ñun la nekk ci sa biiru yaram kenn xamu ko ndax sa yéere noonu laa def guddi gi maanaam guddi gi li ci xew ci lu yàlla yi nëbb jaal na layla libaasa jaal na naara maasha tabax ci seen kaw nag maanaam juróom-ñaari asamaan yu dëgër wa banay naa fawqakum taban shidaada ñaari yu dëgër saxara lakum layla wa nahaar wa shamsa wal qamar wa nujum ba ci biddiw yi musaxaraat yooyu yëpp maa leen tàggat bi am moo leen tàggat bi am rii ci digal inna fi dalika al ayat li qawmin yaqiluun foofu ay kiimtaan ci ba tey ñuy xel bayal alquran sikra muy xalaat ak borom xel lay jëfandikoo ci gëmal wa ma dara lakum fi l ard ak leneen li nga xam ne dafa leen ko bindal ci suuf ci ay gàncax yoo xam ne muxtalifan alwaanuhu seeni couleur seeni couleur ci boppam dañoo bokkut dañoo wuute orange baa nga ne le pomme baa nga ne le benn bu ci bokk ak sa cap ak morom amu ci mel ndox la ñu roofe yusqa bi maa i waaxid wa nufadilu badaha ala badin fi l ukl mel na ndox laa leen roofee ba noppi cap yi duñ bokk muxtalifun alwaan inna fi dalika al ayat li qawmi yazakkaruun foofu ay simtaane ki fa tey ñi nga xam ne ñi tadakkur ñi ngi bàyyi xel xëy nag li man arada yazakar laa wa de ku bëgg a fàttali ko baa nga bëgg xam sa yar am na borom ci topp wa alladi saxara al baxar moom day mooy ki leen doon tàggatal géej wa alladi saxara al baxar géej ni mu réyee bato yi ciy nekk maanaam wallahi bu ñu la waxoon ne la lii xeer sa gën a tuuti soo ko ci tegee mu nuuru mu téye loo xam ne fii ma toog ba mu sori lool ba sax léeg-léeg ngi si yoo xam ne si ay stade day nekk ci biir nga xam ne gaa yi dana ci nekk ba far fàtte sax ne ñooy ci biir géej wala di saxaral baxar lu tax ma tàggatal géej gi li ta ma tàggatal leen li taakulu minhu laxman tariya ngir ngeen mën a lekk yàpp wata boor laxman tariya mooy yàpp tooy xib koo xam ne léegi la génn dañoo jëmi bee feeyi di loolu nag bul ci sukkandiku ba ne kon maanaam bu doonee géej gi di su ko lekk loolu la ñuy tuddee ci wàllu usul suñu borom bu dee bu dee wax dama leen a defal nangam day xool day xool la gën xam nga naan maa leen defal jën yu wow déedéet ma laxman tariya loolu la ñuy wax ci usul moom bu dee masab malik bu dee masab malik mi ci nekk ñoom duñ ixtibaar lu mel noonu mooy lépp loo xam dafa ñëw ala sabila al imtinaan loo xam suñu borom dañoo ñëw dañuy imtinaan dañuy ñax naan maa leen defal nangam la sifa ba mu ciy tudd kooku kenn du ko bàyyi xel laxman tariya wa tastaxriju minhu xilya talbasuunaha ay takkaay yu rafet yoo xam ne ci lay bàyyi ko lu lu marjaan yëpp ci géej lay bàyyi ko wa taral fulka mawaaxira fii di gis bato yi ñu ñu di xot ci géej gi mawaaxir ñu xot ci géej gi wa taral fulka mawaaxira fii wa li tabtaxu min fadlihi wa laallakum tashkurun dara dara ngir ngeen fàtt ngir ngeen fàtt ko rek sama ngëneel man yàlla ak sant ma ak sant ma yëmut ci loolu wa alqaa fil ardi rawaasi suuf si ci boppam ay rawaasi laa fi def maanaam suuf si ci boppam bàyyil xel ne yow doomu aadama dox gi ngay dox li tax booy dox doo doo doo doo jéng jëm nii maa ngay jéng jëm nii mooy damaa jël ay rawaasi mooy ay montagne yu mag ñu tee suuf si moom la wax te sorut na bay ne waj waj jibaala awtaada moom damaa jël doj ma def ko ay awtaad awtaad mooy jamu watit mooy ab daaj boo xamutu daaj ab xayma mu pont bi wala loolu weñ boobu ñu naan samp ci ci suuf xëcc ci buum gi ba mu ñëw ñu dëgër ko ci loolu mooy awtaad wal jibaala awtaada maanaam doj yi noonu laa ko def mu tee suuf si wal jibaala awtaada te mu ne waa xaafil arda waafiya an tamida bikum ba bu ngeen dox ba bu ngeen ba bu ngeen di dox du ngeen jaay wa illa suuf si am na nu mu doon bind booy dox da ngay jaay waan haara dex yi ma ballal ko fi usubula yoon yi ma ballal ko fi laalakum tahtadoon ngir ngeen mën a gindeeku dëkk sàngam yoon yi moo fa jëm kay ku fi aw yoon nekk nun ngay xam wala laalakum tahtadoon dëkk sàngam yoon yi moo fa jëm laalakum tahtadoon waan haara wa subula laalakum wa alaamaat alaamaat ma def ko itam muy ay alaamaat ñu ne xeer wala de mooy tolloog dëkk sàngam xeer wala moo tolloog dëkk sàngam alaamaat wa bin najmi hum yahtadoon biddiw yi nag ci ngeen di gindikoo moom bu ngeen nekkee ci biir géej gi xamut leen bu waxtu yu toll ci biddiw yi ngeen di gindikoo wala moo leen fa ngeen jëm wala ñi nga xam ne dañuy jàng sax ilmul falak te la ñu yeewu ci guddi gi duñ xam duñ yor montre ñu xam ñu xool ci biddiw yi xam fan waxtu moo jëm fa alaamaat wa bin najmi hum yahtadoon mais nag afa man yaxluqu kama laa yaxluqu est-ce que kii bind mën naa yem ak ki bindut afuma yàq la ko kamal laa yàq est-ce que kii binde mën naa yem ak kuñ bind afala tadakkaru xanaa du ngeen xalaat wa in taxudu nicmatallahi laa tuxsuha nan yem foofu ngeen jéemee lim xéewale yàlla yi laa tuxsuha inna allaha la gafuru rahim yàlla ku bëri yërmande la yàlla ku bëri njëggal loolu yi nag doo ko xam mukk mukk mukk ba noppi nag maanaam nekk bu ñukk nag teg ko fële nag loolu du wàllu gor dama ne as gor digganteem ak boromam loolu waru fee jaar bu mu jéem a dagg mukk relation bi dox digganteem ak yàlla bu nu xëyoon ñun ñëpp def benn geres ne yàlla nun jaamootul danoo taxaw bàyyi na boo moytuwul te bis boobu danañu defal ci xëyoon loo xam ne boo moytuwul sax ku gàtt xel defe ne maanaam mbaadu daa defe ne mbaadu dafa loolu ci mbir mi ba far mu nuy neexale li ak yërmaane wef na ko mboolem sharikaat yu mag yi société yu mag yi ñu fay xëy di liggéey bu ñu xëyoon xëy xëy na ñukk mbir ma dan noo koy sunu payoor bu leer xaw nga gis commencé tournuy bind fee bind fee bind fee ba keroog ñu leen day saan delluwaat ci kii ma tamit fan yooyu yëpp kon la cay perte nag ci loo xam ne fi maanaam lu waroon a ci wala économie la ci kenn ko mu toll kooka kay mooy ka leen jiite dafa soxlaal ñii ka leen jiite daa soxlaal ñii bu dul ñii du dem loo mën a santaane bu nit ñi ñëw jàpp ca du dem waaye yàlla lu mu santaane kenn di ci jàpp lu mu santaane antumul fuqaraau ila allah yéen ñëpp ma aajowoo allahu alganiyul hamid lu mu santaane jëru kenn di ko jàpp bokk na ci mandarga mi nga xam ne kenn ku ne mën nga ko fetlu ci yàlla mooy koo xam ne bu ñëpp ku maasa woon ci bàyyi ay mbiram du ko tee dox te moom ku bàyyi sa mbir du dox loolu bokk na ci li nga xam ne na koy bàyyi xel diggante ak borom loolu nañ ko sante aay bii nga xam ne moom dugal foofu suma taxasubul ajra min baadi wa antum zalimun wa id fatlikul ba nga xamee ne axad naa jël nanu nun yàlla misaaqakum seen kollëre waaw misaaqakum seen kollëre fatlikul ba nga xamee ne nun yàlla noo jël ci yéen misaaq misaaq yàgg nañ koo fi ne mooy al ahdul mu akkadu bil yamin kollëre goo xam ne dañ koo feddali ak ngiñ loolu mooy misaaq ñu ngi jële ci wasaaq ñu fi ne ak buum àndaa mel danga koy yeew ci ne maanaam lii jël naa kollëre ga duma ko bàyyi wa id axad naa misaaqakum wa rafaanaa nu yëkkati nu yàlla fawqakum ci seen kaw ak tuur dajoo wee nga xam ne moom la yàlla yëkkati woon ba mu tiim leen mu ne leen nag for force da ngeen gëm nag maanaam tawaraat maa ngi wàcc ba ci seen kaw foofu yàlla àgg na fekk jaam téeméeri wa in nataqna al jabala fawqahum ka annahu zulla wa zannu annahu waaqi'un bihim dañoo dem ba am lu wóor ne maanaam buñ jëmut taw dajoo nag seen kaw ñu soog a jëm ba ba noppi nag yàlla xuduma aati na ko jël ayoo jëlal ma ñu ne maanaam suñ daara bi tiim jëlal jëlal loolu bi mu yàlla àgg na fekk jaam وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ngir rek kay leen mucc kay leen mucc ba nar caa doo ay nit kay leen mucc ba nar caa doo ay nit ah waaye si may wa ma yudre fala hadiya lahu ko yàlla ko réeral kenn nga mënu koo gin feneen mu ne falan dajila lahu waliyan murshida kaw suuf rek doo fi gis koo xam ne si maanaam dana ko jàppale mbaa mu gindi ko teg ko ci yoon mënta nekk xudu ma aataynaakum jël leen li ma leen jox bi quwa te jële koog doole mooy lépp loo xam ne ci yàlla bàyyi ko bu ñu koy jël doole lañ koy jëlee duñ koy jëlee ak wayax wasmau na ngeen dégg ca loola bañ leen ko waxee itam xaalu dañoo wax ne sañoo naa dégg nan waaye waasay na mooy nanu dégg nañ li ñuy wax ñu naan ñu ne waaye waasay na danoo dëgg yàlla ku bëri yërmande ku bëri yërmande la loolu ñu naan ñax gu tooy dana lakkaale googu léegi-léegi yaa am loo xam ne si maanaam nit dana ko def mbaa mu wax ko mu naroon mu waroon a man tas addina bépp su suñu borom du ko def moo tax yent yàlla masih ba nga xamee ne am na nit ñu jekki-jekki rek ne mooy yàlla la suñu borom da caa teg loo xam ne fii loolu ñuy wax ñax gu tooy dana la gaal googu laqad kafara alladina qaalu inna allaha salis inna allaha wal masih booleem ku ne yent yàlla masih yàlla nga weddi nga yàlla daa cee teg ne qul fa man yamliku min allahi shay'a in arada an yuhlika almasiha wa ummahu wa man fil ardi jami'an ana ku ma mënal dara man yàlla su ma bëggoon a alak masih mi ngeen naan yàlla la wala ma bëgg alag ndayam mbaa ma alag la yéen ñëpp in ci kaw suuf si ku ci man dara qul fa ma yamliku min allahi shay'an in arada an yuhlika al-masih wa ummahu wa man fil ardi jami'an kon sami'na wa atayna ci ñooñu rek lañ ko dégg waaye melaw jullit ñi nga xam ne nag ñooy xeetu yonent bi alayhi salatu wasalam suñu borom nee na innama kana qawla almuminina ida duu ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na loolu moom mooy suñuy melo yàlla ci yàlla boole ñi nga xam ne mooy wax ñi gëm yàlla dëgg-dëgg suñu borom nee na mooy ñi nga xam ne boo leen waxee kaay leen yàllaa ko yonenteem atte leen ci seen ngir moomu ñu ne la sami'na wa ata'na dégg nañ topp na daal ne ulaa'ika humul muflihun ñoo ñaay ña taxe ñoo ña taxe kon sami'na wa ata'na du melo julit wa ushribu dañoo jaxase xubbul ijli xubbul ijli danañ ko fi taqdir ñoom nu xaadi bëgg ñu bëgg sëlloo dafa jaxasoo fi xulub seeni xol maanaam sëll woowee nga xam ne moo fi jaaroon fitnaal nit ñi ba léegi jóge gis seen xol yi ba léegi jóge gis seen xol yi daanaka looy wax loo ne moom la ñuy imaginé maanaam ushribu fi qulubi wal ajna bi bi kufrihim te sababu seen wet xul waxal yow yonente bi alayhi salatu wasalaam ne bi sama bon na lool bi sa bon na maa ya'murukum bihi imanukum da ngeen a gëm ñu ne ah mu ne seen gëm gi de lim leen digal ka bon lu waxin la da ngeen a gëm ñu ne ah mu ne seen gëm googu lim leen digal ka bon bi sama yaa amurukum bi imaanukum in kuntum saadiqin su fekkee ne li ngeen wax dëgg la seen bon googu lim leen di digal dara seen ngëm yàlla googu lim leen lim leen di digal du lu baax suñu borom teg ci benn aaya boo xam ne ci lañuy taxaw insha allahu taala kul waxal yow yonente bi alayhi salaatu wasalaam in kaanat lakum daarul axira bu fekkee ne bis bu mujj ba yéen dong ko moom nag ni ngeen koy aay ci moom li ci gën a bëri ci seen i wax bis tey ci moom nun xaw mu mujj rek laaj leen in kaanat lakum daarul axira su fekkee kër bu mujj googee xaalifatan inda allahi min duni naas dafa nekk xaalisa nga xam yéen dong ko moom min duni naas nit ñi seen yoon néew ci kër bu mujj googee muy àllaaxira su fekkee xaalifatan yéen dong ko moom min duni naas nit ñi seen yoon néew fata mën na woon moo tax mébét leen de in kuntum saadiqin fekkee li ngeen wax dëgg la mébét leen de ajjana moom sëpp buñ ko meelaat nam mel ak nam la fa nekk nga fas yéene ne man maa ko moom faaw nga dugg fa nga jeex parce que ma doon wax ndax kat coono yi àddina yi yaa ngi sa yaa ngi lijjanti lu ma sotti te foofu moom kenn du fa lijjanti lu sotti ko di sa yaa ngi sonn fi foofu ab coono nekk te mënul moot bu ne ko waxee da nga taxaw te mënul moot a ink na faa defee ñëwet leen faatu su fekkee li ngeen di wax dëgg la fa tamannaw mawta in kuntum sadiqin loolu ni ko mufassiroon yi waxee dañuy wax ne xeetu mubahala la dañuy wax mubahala yonent bi alayhi salatu wasalam ci xadis bu wér nee na keroog bi yàlla waxee lii day yahud yi bu ñu méwatoon faatu ñoom ñëpp danañ faatoonoo benn benn benn yahud bi def ci kaw suuf benn yahud bi def ci kaw suuf daal keroog ba leen yàlla waxee loolu su fekkoon ne kenn ci ñoom mébat na ko rek kenn def ci kaw suuf am bi moo nu tontul boppam ne wala yatamannahu abada dunu ko mébat mukk moo wax tontuwaat lu xololan di lim dàq ba duñ ko may dee lan moo tax bi maa ci sababu li nga xam ne xaddama daf ko jiital ay